ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي عليك اتكالي يا ذا الجمال ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي عليك اتكالي تمر الليالي بنفس ومال فيا قوم ما لي عن الموت سالي جلالي هذا جمالي وهذا المعالي والنهر جدال والليل جدال وحول رجال على مثل عالي يا ذا الجلال حقا بغي فبحثا وسوقا له من رجالي أيا صاحي مهلا أأسلك جهلا وأدبق غيا سبيل الدلال أفي الموت ريب أيجمل غيب لمن لها شيب له في القصالي شباب يفر وشيب يكر وما إن تمور منون ببال يا ذا الجلال الله ويا ذا الجمال الولد قليل وحمل ثقيل فكيف احتيالي أيا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي عليك اتكالي فكن عند الذني ولا تسلمني ولا تعذلني بسوء الفعال فأنت الرجاء ومنا الدعاء ومنك الحتاء فهب لي سؤالي وأزكى صلاتي على ذي الصلاة شفيع الحساة وصحب وآل جرجب أستاذ جرجب ما شاء الله أنت الرجاء ومنك الدعاء ومنك الدعاء ومنك العطاء فهب لي سؤالي وأسكى صلاتي على ذي السلاح شفيع العصاة وسهب وآله gis ngeen ku xeeb li ñu am billaahi doo am dara xoolal kii ki ko taalif Abdourahman la tudd waaye woy bi àggul te woy boo àggul ñaan nga du nangu gis nga wax na ne tariqi taw nitu yàlla la nag dafay wax tariqi tawilun wa daadi qalilun wa ximli saqilun ak a jara bàyyi xel xam nga di tukki tukki bu gudd te gàtt te tukki bi ka ngay dem war nga ko yóbbul yóbbal waaw tey ku fi dem sa kër wala say bokk di nga ut yóbbal yóbbal lan ngay wut xaalis wala bonbon wala nangam wala nàngam kii nag nee na yàlla lay jëm waaw ku jëm ci yàlla loo ko war a yóbbul mu ne tariqi tawilun wa zaadi qalilun wa ximli saqilun fa kayfa ixtiyaari mbokk yi nañ ci bàyyi xel samam abdu bi mu koy génne quatre-vingt-quinze ci gént ci gént la toog di ko way mi ngi jaaxaan wallahi alazim mi ngi mel ni maa ngi toog ci wetam mu koy way ca kaw ba mu yàgg moo ci def wa aska salaati ala disilaati shafii lxusaati wa sahbin wa way bi soo ñaan gi soog a nangu kon nee leen amin yal na yàlla def fi jàmm ngeen baal ñu xaq wasalaamualeykum wa rahmatullah moom kay ñaan naa ba pare ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي عليك اتكالي واو لني بسوء فعالي فأنت الرجاء والله ومنا الدعاء والله ومنك العطاء فهب لي سؤالي وأنت صلاتي على ذي الصلات سبيل عصاتي وصحب لا لا لا هذا الجلال billaay wajadi qalil wallaay waxni taqilan kay baxtiyali وواء طريق طويل ولدي خليل وحمل ثقيل فكيف احتيالي géej nañ sànniyaat gaal gi géej gi dafa yëngu mooy firi bayit boobu tariqi tawilu mooy yoon wi gudd na mais am na lu mu wund mooy nañ sànniyaat gaal gi ndax géej gi dafa yëngu wazadi qalilun ne bi dafa sori lool waxim li saqim eh, waaye na marchandise mi lew ndax duwaan bi bët bi dafa ñëw way way fa kay waxtu yaa te loolu yëpp ànd am awma ci leen kon leen mooy pexe te loolu mooy mooy mooy mooy nekkinu àddina àddina dafa dafa dafa gàtt te gudd te ñu koy ñu pare pour yàqal la ci dañoo bari lool bakkan ak seytaane fu ñu taxaw bànneex taxaw ca gannaaw ñoom ñëpp kenn ku ci nekk rek na laa gàllankoor pour nga am ngërëmal yàlla yow nga nekk ci war a tukki tukki bu sori soo yóbboo defaruwaat bu fekkente ni itam yeneen yi nga xamante ni itam moom nga nar a yóbbaale pour am fa jàmm yooyu yépp tabaarakallah macha allah ah, xaw la jafe ci jamono bi ngay dund soo góorgóorlu rek di nga dem te du yóbbu dara la ciy pexe nag mooy nga di jox sa bopp yàlla te wéeru ci te wéeru ci yàlla te roy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te won gannaaw lépp nag xool fi nga ma rek waaye su dee ku la tooñ nga bëyu ku la xas nga tontu ko ku la ku la kobos nga kobos ko doo dem ndax ki la féete ginnaaw mooy gis li ci sa ginnaaw euh, pour mën ko wax waaye su la féete woon kanam du mën a gis li ci sa ginnaaw kon yow yaa ko féete kanam déjà avantage la beneen bi mooy en général oto yi klaxonné mooy yi féete ginnaaw ñoom nga koy faral di klaxonné waaye kon yow yaa ngi ci kanamam kon demal rek te bul klaxonné yow bàyyi ko rek noonu kon nag noonu rek la ñuy àndee ànd bi tabarakallah am ci ngërëmal yàlla kon ñu ngi nuyuwaat ñëpp di ziyaarawaat ñëpp di baalu xaq ñëpp ñu ñaan yàlla jotaay bi yàlla bu nekk suñu mujj jotaay yàlla nañu yàlla defal lépp lu ñu am ñu am yàlla lépp lu ñu ñàkk yàlla bu ñu ñàkk yàlla kontaan nañu bu baax a baax a baax a baax a baax